aljuluusu fa qaama amdan suma tabayyana anna al imaama qaama li muujibin fa inna salaatahu tasixu inda bni al mawaas waxtaara allaxamiyu al butlaan ki nga xam ne moom daa jàppoon ne ilimaan day yokk dong ñu waxan ko ne ko toogal moom nag mu tey ko jóg toppi ko kooka xam nga waru ko a toppi waaye bu ilimaan leer leen ne ah li ma def kat noonu la ndax ràkk sàngam dama caa bàyyi woon nangam moo tax ma indi ràkk boobu xam nga ne kon la mu def te day ko ca dëgg-dëgg moo war a naam ndax li ilimaan def def ko caa war a topp kon Ibnul Mawaas day wax ne jullee wér na ñàkkam ñàkk a topp lañ ko digaloon du dara allah xam yi ne déedéet julleem yàqu na wa amma man hukmuhul juluusu li tayaqqunihi intifaa al mujibi fa qaama sahwan laa tabtulu salaatuhu walakinahu yuhidu arrakxata ida tabayana lahu qata'u yaqinihi wala tujsihu rakhatu sahwi ala aslil mashhur wa kasa la tabtulu salatu man hukmuhu alqiyamu fa jalasa sahwan lakin ya'ti aljalisu sahwan amma umira bihi min ittibahi al imami min ittibahi al imami bi rakaxatin ida stamarra ala ixtiqaadihi dalik xam nga lee nga weesu mooy ku ne lañ la waxan danga koo xëtt bañ koo def ci kaw tey muy wax na bu fekkee ne njuumte rek tax nga def loola mel ne ka nga xam ni wóor na ko ne ilimaan day yokk rek xam nga dañ ko digaloon toog moom nag mu jóg toppi ko waaye daa juum dong kooku bu ilimaan leeralee ne rakk bi kat nangama tax ma andi ko muy sabab su wér kon moom topp gam ko topp ci kaw njuumte rek du tax rakk boobu doy ko mooy faaw day indiwaat beneen rakk waaye rakk boobu mu ànd ak moom ci kaw njuumte rek du ko doy ba tey ka nga xam ne daa war a na jóg ànd ak ilimaan mu toog ngir njuumte bi yoon teyu ko ndegam amul dara lu dindi pas-pasam boobee maanaam jàpp gam jàpp rek am na rakk bu yàqu ilimaan bi muy def da koy weccee booba xam nga ne kon da ko waroon toppi moom nag mu juum bañ koo toppi daal di toog kooku faaw mu indi rakk boobee mu jàpp mënta ñàkk julleem door a baax in sallama ndem salmal na al imaamu ilimaan ba min qabli kamaali salaatihi ci matu julleem ga di sax li sahwihi ngir ak juumam duuna dalaalin ci lul ak réer sabaxa kon sabaal bihi ci moom man ka nga xam ne fii xalfihi nekk na ci gannaawam nee na su fekkee ilimaan dafa sëlmal ndax jàpp ne julli gi mat na ndekete moom loolu la jàpp waaye julli gi matut kon yow mi ànd ak moom ngeen di julli da koy sabaal ndax mu xam ne julli gi kat matut ne moom bu doon sikki sàkk moom ilimaan ba xam julli ji mat naa matul moom dañ ko waxoon ne ko la ngay sikki sàkk def ko ne bu dee si bu sàkk rek mat naa matul ba noppi sëlmal julli ga yàqu moom loolu waxoon nañ ko waaye moom day jàpp ne julli gi mat na te maamu mi jàpp ne matut kon nag yow mi jàpp ne matut te ànd ak moom di julli da koy sabal ndax xelam dem ci ne julli gi manqué na mooy fa in saddaqahu ndem dëggalal na ko bixil mi nuqsaan ci xam ak manqué yaa ngi nu kooku dana gaar kammala kon mu mottali salaatahu julleem ga tumma sajada soog mu sujjóot baada salaamihi ci gannaaw sëlmalam ba nil naa yal nanu am rusdan ak njub daa wax ne biñ ko sàbbaale di ko woon ne ko julli gi kat sëlmal nga waaye matut tem gëm lañ wax ne julli gi matut kon na ko mottali bu ko mottalee ba noppi nag mu sujjóot baada salaam ndax sëlmal gëm sëlmal te sëlmal ba dëkkul foofa loolu ndooleen la wa in taraddada ndeem déng déngi na ida ma uxbira ndéem xibaareef na ko saala kon mu laaj xaddalay ni ñaar ñu mbaandu li kay yu xarrira ngir ñu saxal ñoom ñaar su fekkee dañ koo sàbbaal moom indimaan gannaaw ba sëlmalee dañ koo sàbbaal di ko wan ko julli gi kat sëlmal nga waaye matut moom nag muy déng déng ba xam wax nañu dëgg matut am mat na kon day laaj ñaar ñu maandu ba xam liñ koy wax te ñaar ñu maandu ñooñee mën nañoo wax ak moom bu fekkee junj rek mënu caa xàmmee mooy wajjaw wasoo daganal nañu alkalaama wax ñun xaddalay ni ñeel ñaar ñu maanu ña xiina isin ci waxtu woowee bi zaaka ci loolee buuna bay nañ ci lu dul fenn dil xabar yi ngir xibaar ba alma azori bari bi ñettali xan si xaatin jële ci ay ndër laay maanaam jële ci ñu ñu dëgërloo fi sha'ni zil yadayni ci mbirum zil yadayni ma fi salaati ci julli ga nee ñaar ñu maanu ñam laaj moom ilimaan bu fekkee junju mënuñu ko caa xamal ba mu xam mën nañoo wax ak moom bu wér te du tax julli nga yàqu la cay tegtal mooy masoon naa dal saxaabi yu bu ñu wax dul ya day ni yonent bi daa julli ñaari ràkka mel la woon daal di sëlmal dul ya ne ko ah dangaa fàtte am na ngaa wàññi julli gi yonent bi ne ko kenn ci yaar amut man dana ko fàttiwuma wàññiwuma ma ne moom kon daa jàpp ne julli gi mat naa waaye ba yonent bi laajee rek lañ ko xamal ne ko waaw noonu mu wax la den julli gi de matul yonent bi yàlla da koy fàtteloo ndax mën caa joxe aw yoon xam ne bu fekkee def na luy nuru fàtte mbaa juum ca la ñuy xàmmee na muy defee nag bu dalee nitu kese moom nu muy defee kon nag na yonent bi laajee ñu tontu ko xamal ko ne ko li du dañu wax dëgg la bu daal defar julli ga tegtal la ci nekkoon ilimaan bu ilimaan bu déng-déngee mën naa laaj ñaar ñu maandu te ñooña mën nañoo wax ak moom wa in tayaqana ndéem wóolu na al ilimaan ba kamaalaha matuk julli ga fa xamalun kon jëfe xalaa yaqinihi ci ko wóoloom nga yiraamu def na ko sàkku wa tarkuhu akuk bàyyee maa nga xam ne shakka sikki sàkk na fii ci moom in lam yaksur ndéem bariwut unaasun ay nit xalfahoo fa gannaawam faltaalam na nga xam su ilimaan laajee ñaar ñu maandu ña ñu xibaar ko ne ko ah julli gi day daa manqué ab rakk mbaa nangam te wóor ko ni wax nañ dëgg mbaa boog muy sikki sàkk ba xam wax nañu dëggam déet kon da di fekki daal di mbott li loolee ñu wax ne moo ca manqué su fekkee ne nag ba ko ñaar ñu maandu ñu waxee loolee ne ko julli gi manqué na nàngam moom ilimaan ji ci boppam daa wóolu ci xolam ne ñaar ñi li ñuy maandu maandu li wax dina wu ni julli gi mat na dara dara manqué wu ci kon day doyloo lam jàpp ci xelam ak ci xolam ne julli gi mat na na doyloo loola bañ a topp ñaar ñu maandu ña su boobaa nag ñaar ñu maandu ñooñee ñoom faaw ñu mottali seenu julli ndax wax gañu wax ilimaan ko sa julli gi manqué na te ilimaan gëmu ko doyloo mat ga mu jàpp ci xolom du tee ñoom rekk balaa seen jaana wàcc ñu mottali seenu julli mu des nag bu fekkee ne ilimaan ñaar ña maandu nee nañ ko julli gi manqué na moom nag mu gëm ci xolom ne julli gi mat na waaye nag mbooloo ma ca gannaaw kat dañoo bari lool te ñoom ñëpp kon lu mu wóolu wóolu xolu boppam ak xelum boppam ne julli gi mat na bu dee ñaar ñu maanu ñu kese moom day doyloo wóolu xelam ak xolam te bàyyi ñaar ñu maanu ña waaye nag ña xibaar ne julli gi matut su fekkee dañoo bari bari goo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo maase ci juum kon day bàyyi lam jàppan ci xolu boppam ak xelum boppam te fekki mbooloo ma daldi mottali julli ga mooy fa in yu fithu ndem dana ko jëriñ alxaq dëgg am na ñu jàng ixbaaruhumoo seenu xibaar ixbaar nekk masdar bu dee ci ñu jàng naxu wala axbaaruhumoo seeni xabaar muy jamhu jamhu xabarin yatruk kon mu bàyyi yàq yi naxoo wóoloom nga weer jeex te mu dellu laxum jëm ca mbooloo moom daal su mbooloo ma ci gannaaw ilimaan néew sax ñoom ñëpp ñu maase ci wax ne ko sa julli gi matut waaye daal ñu ca bari wax nañ ko bañ a ko wax daal ñoom ñëpp maase ci njuumte xel nanguwu ko kon nag na élimaan bàyyi lam jàppan ne julli gi mat na jàpp la mbooloo mu wax ne julli gi matut daal di koy mottali bu nu delloo nag ci xadiisu saxaaba boobu doon wax ak yonante bi nee nañ julli googa benn muy tisbaar wala muy takkusaan yonante bi daa julli ñaari ràkk rek daal di sëlmal fekk na sax booba Abubakar ak Umar ña nga waaye wekk nañ yonante bi ba mënuñu koo wax ne ko ah dangaa fàtte dangaa wàññi waaye ku ñu wax nag Zul Yadayni moo ko wax loolu nekko ko fàtte am na ngaa wàññi yonent bi nekkoo ko kenn ci yooyu yaar amu ci julli dañu ne ko ah kay kon da ngaa waaye ñaar rek nga julli yonent bi nag laaj mbooloo ma mbooloo ma ne ko waaw wax na dëgg de yonent bi daal julliwaat ñaari rakka teg ca ndax niñ ko waxe moom benn muy tisbaar rek mbaa muy takkusaan mu daal julliwaat ñaari rakka teg ca ba ñaar rakka ñu jeexee nag mu daal di baxda salaam maanaam mu sujjoot ñaari sujjoot ni nga xam ne moom lañ ko miinee def ci sujjootu baxda salaam téere bi foofu la yam nu faat leene ba ñuy wax ci gannaaw koo xam ne ñaar rakk ñu mujj ci julli ga da caa jàngale aw saar wala benn rakk ba mujj ca timis mu jàngale ci aw saar loolu defe naa jot nu woon a leeral ne lu ñu sib la ku ko def moom dara du ca war waaye nag def nga lu ñu kon nag bul ko tey ba noppi ñaar rakka ñu mujj ba benn bu mujj ca timis nga di ci jàngale wu saar sëñ bi nag ne haza jàppal lii la nga xam ne xasattu jublu woon naa jam xaxoo ak dajaleem maanaam mooy ak taalifam rek tamula mat na bi idni man ci nammeelug yàlla mi nga xam ne yool yi dana méngale mooy dana jox al amala mi bat man shaahu ko soob nee téere bi jeex na laa jublu woon a taalif te mooy way weesaru laxdar yi def naa ko nii ba mu àgg ci nameelu yàlla ak mbaaxam yàlla mi nga xam ne ku ko soob rek bu jox la la ngay mébét ak a bëgg xam dan maa ngi sant ak cant li rab yi ñeel sama boroom almaliki kay buur alxudduusi kat yi ab sellaa kon xalaa tamaamil jawharin nafiisi ci ma toog al jawharin nafiis dina maa ngi dellu di sant yàlla buur bu sell bi ci dimbali gi ma dimbali ba téere bi àgg muy al jawhar an nafiis maam voomatan mbir mu muy aw way tas bi wow day jàpp alxalba xol ba tas bii alxalba lil xus ni ngir ab taar saa mbir mu muy aji kawe urjo satab ni abba rajasu ibni abba nee na naa ko muy taalif woo xam ne dafa rafet rafet ba nga xam ne day jàpp xol yi téye leen duñu mën a rëcc mooy képp koo xam ne xam-xam am nga ci xàmmee ak ku ko ràññee rek way wi day rafet fi lool ba téye sa xol sa xol du ko mën a bàyyi muy rajas woo xam ne nee na moo féete kaw sax rajasu ka ñuy wax ibnu abba bu dee nag saa bii moo féete kaw rajasu ibnu abba day mel ne kon ku woyofal ibnu abba mu daal di ne laakin naxoo waaye moom kat xadd saadanaa sang nanu wa faaqanaa te mu kawenu fil himami ci yittee bi sababi taqaddumi ci sababu jiitu ga mu ne waaye ibnu abba kat ba mu nu njëkkee taalif rek la yóbbu ndam la sunu sang la te itam moonu ëppale yitte njëkkam lu njëkk taalif rek tax na moom daal dal nanuy sang féete nu kaw loolu da ko dabaatale di wax léegi mu lay nuru ne daa woyofal ibnu abba déedéet las naa déet nun kaxoo ni mel ne moom fil ilmi ci xam-xam wal ak aku xàmmee wal kashfi aw wuñu ay secret bu yàllay defal nit wala anwaari ak ay leer wal iqaani ak wóolu daa daal di fal boppam lool ne nun dey melun mukk ne ibnu abba moomu ca xam-xamu zahiram ba ak xam-xamu baatinam ba ak wan nga ko yàlla wan secret ya ak leer ya ko yàlla may ak wóolu nga ko yàlla may daa daal di fal boppam lool yëkkati kookee lool nafaxanaa yàlla nanu jariñ allahu yàlla bihi ci moom wa bi jamii amsaalihi ak ci mboolem ay moroomam min kulli saalihin ci yëpp waaju baax mutihin koy aji topp yàlla yàlla na nu yàlla doolee jariñ ci darajay ibnu abba moomu ak darajay mboolem gaa yu baax yi nga xam ne ñoo sax ci rafetal ak topp xadixtawaa làq na moom téere bi xisban li mu bi firi naataange minal abyaati ci ay bayit fa yudhibu kon dana dàq adhaba demal na mooy dàq na rek aljat ba bekkoor ba lisil haajaati ñeel boroomi aajo nee bayit yi boo ko dee wàññi day tolloog lim bi nekk ci xisbu bi firi naataange xisbu xaalonk gi moo di juróom-benni téeméer saat gi di juróom-benn fukk baa bi doon ñaar nee na lim boobu ci xis bu bi fi di naataange noonu la bayu ci téere bi toll kon nag fu mu fekk bekkoor rek dàq ko mu dem naataange dal fay sax daxawtu ñaan naa raziqal wara aji wërsëgal mbindeef yi aljalila mi aji màgg kaw na nizaami nekku sama way wi jaihi wi de maq boolan di lu ñu nangu maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi am lépp te sañ lépp te lépp maa ngi koy ñaan rek mu def suma téere bi muy téere bu mu nangu bu mu gërëm wa an yàkkoona ak mu nekk naafihan di aji jariñ kal asli ba mel ne cosaan la wa an yuqirra ak mu seral alxay na bët ba indal kulli fa képp mooy fa ñépp maa ngi ñaan yàlla téere bi jariñ xeetu yonante bi li nga xam ne moom la al axdari yi jariñu xeetu yonante bi ñu bare bari jàng ko jariñu ci sama téere bi itam nee na yal na ko yàlla def noona yal na yàlla serale xool yi ñëpp itam ci saa téere bi mooy sama téere bi yal na ci ñëpp amee xool bu sedd bët bu sedd boo ko déggee rek mooy xol bu sedd wa an yakoona ak mu nekk sababan sabab li fatxi mubtadi in ñeel ubbik aji tàmbali ibtadaa ju tàmbalee na bii ci moom war nuj si ak pajub aajo ajo na maa ngi ñaan képp koo xam ne nga cee tàmbalee sam njàng rek yàlla defal la ci ubbiku nga daal di cee rek amu ubbiku gu sar rek sa ajo faju nga amu ubbiku ci xam-xam bu leer bu rafet ak jëf ju yiw sa aajo faju faaw faaw loolu maa ngi koy ñaanal képp koo xam ne rek tàmbalee nam njàngam ci saa téere bii wa an yu jaasiya ak mu fayanteeg moom yàlla taxalaa kawe na kull naa képp ci nun bi lut fi ci ñewante wal xufraani ak njéggal xabla xam mi naa ci njëkk sunu njàqare nee na maa ngi ñaan sunu boroom rek mu fayanteeg nun ci ñewanteem ak njéggalam bala noo tiit ak jàq mooy yàlla mi ngi ñaan rek yàlla jëflanteeg nun ci ñewanteem njéggalam yermandeem te bañ a jëflanteeg nun ci sunu doye di sunu matadi wa an ulaaxiya ak mataseek jasiilal ajri aji ab yool bi ci moom ladal mawti fa faatu ga wa yowmal xashri ak ca bisu pang ba maa ngi ñaan sama boroom faye ma ci tuyaaba ju rëy rëy ca fa ñi soxlaa tuyaaba muy la dale ca dee jëm bar sax jëm bis bi jaahi nibraasil wara ci daraje lamp mbindeef yi muhammadin te mooy muhammad salla yàlla na dooli tedd nga wa sallama te dooli wóolu xalihi ci moom al abadiyu yàlla mi ko jug dappet mooy yàlla mi amul fu mu yem wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay saxaabaam alkiraami ñetti way tedd maanaa la li fekk am na haadin aji jub mbaa aji jubal ba tey ahsanal xitaami gën jaarafeti mucc nee na li may ñaan maa ngi koy ñaan yàlla ci daraje yonent bi nga xam ne moo doon làmb bi leeralal mbindeef yi te mooy Muhammad yal na ko yàlla saxoo dolli teraanga ak jàmm saxoo ko dollil mbokk mi ko gëmoon ak saxaabaam ya li fekk nga xam ne ku jub tey jubal ma loolu incha sax ku jub tey jubal moom mujj gu rafet rek lay am incha allah li fekk looloo ngi am nag kon yal yàlla saxal salaatu ak salaamu ci yonante bi ak mboolem gaayam yooyu yëpp ba tey ñu seetlu ne ba nu tolloo ci tudd li ñu wax reetaane ne suñ boroom aaya na ko ci alxuraan danoo juumoon tudd ne loolaa nga nekk ci suuratul fatxi te loola mi ngi nekk ci suuratul xujuraat mooy laa yasxar xawmun min xawmin ba na mu daanoo defar nañ ko ci yenn kaset yi waaye kum nekk ci sa kaset tam nga xam ne rek ci suuratul xujaraat la boobu nekk waaye nekkul ci suuratul fath ba tey boo ñëwee ba ci fi muy tudde waxtu yu julli yi téere yëpp dañoo maase ci bind daanaka ama daroori yu liha zeyni mën nañ koo jàng rek liha tayni ban ca tolloon dañoo jàng liha zay ni waaye ku yor sa bo defaraat ko liha tay ni ba tey boo agsee ci fam doon tuddee tiim ci lu mel ne galaas wala ban buy rem-rem bi dafa am ñaari nett li daa am ñu wax ne dangay teg sa loxo bu baax a baax ca galaas ga mbaa ban bay rembi rembi waaye da nga koy xaw a fendal tuuti ba mu fendi nga doora a raay sa kanam ak say loxo am ñu ne dangay teg ndànk rek say loxo bañ a tooy bu baax nga daal di raayu fa saasa mel na ne kon nag net li bu bi mooy teg sa loxo ndànk mu bañ a tooy bu baax nga daal di raayu fa rek moo gën a jàppandi ba tey nga seetlu fa doon waxee di julli jàng faatiha dellu ko jàngaat loolu bu fekkee ne daa juum rek moom day sujjóot ba de salaam waaye nag du faatiha dong lu mel ne rukkoo mbaa sujjóot lépp lu mu ci def rek dell ko defaat waaye juuma tax day sujjóot rek ba de salaam baa mu faatiha te tey ko lañ sukkandikoo mooy du tax julli ga yàqu waaye nag ponk boo xam ne ponk bu jëf la ñu ki rukkoo mbaa sujjóot moom su ko tayee def ko dellu ko defaat moom julli ga day yàqu ba tey boo seetloo ba mu tolloo ci di wax di julli ree daa waxal ne bu jullee ree te tey ko moom julli ga yàqu na mu ne woon nag bu fekkee ree ga teyu ko dafa juum am nag wuute ci yàqu na am yàquwut waaye wax ba gën a wóor mooy ba tey julli ga yàqu na foofu la téere bi yem ku ko déglu rekk lu mu néew néew mu ñaanal ki waroon jéem leeral ci waxi wolof ngën ji jégalu yàlla ak ngën ji yërmandeem ak ngën ji mujj gu rafet ci baaxub sëriñ bi taalif téere bii radiyallahu taala anhu wa nafaxana bihi amin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 muy jàngale wàllu jikko yu rafet ak teggin yi gën rafet ci lislaam fi la tàmbalee bismillahi ci tudd turu yàlla laay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewle xéewal yu dijj yi arrahimi yàlla ki aji xéewle xéewal yu sew yi sëñ bi daa tàmbalee ci bismillahi arrahmaani arrahim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa waxan ne ci yéen mbir yi am solo dee leen ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ma dee ko tàmbalee tur yàlla daal wax sax mbir mu ñu tàmbaleewut tur yàlla barke ba day manqué mbaa sax du am barke tàmbalee tur yàlla kon dañ koo fonk lool lépp loo xam ne moom ngay tàmbali te du ak mooy rek na nga tàmbalee bismillahi arrahman arrahim a bokk ci tur yàlla yu màgg yi man nga koo firee yàlla muy xéewle xéewal yu dijj yi te xéewle xéewal yu sew yi ndax xéewal yi am na ci yu dijj am na ci yu sew ba tey arrahman ñi ko sëñ bi ëpp firee moom day delloo arrahman ci yërmande àdduna ji nga xam ne ñëpp la ko yàllay matale su ñu koy weddee kay mooy sax da leen cee xéewal ba xëy na ñu ëppee ci ci zahir ñay gëm a topp arrahim nag mu féetale ko ci primi yërmaande àllaaxira ja yàlla jagleel ña gëman rek nga xam ne ña weddi woon moom duñ ca bokk wasalla yal na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina sunu sang muhammadin muhammad wa alihi ak ci ñoñam wa saxbi ak ay saxaabaam wasallama te mu dolli leen wóolu tasliman dolli wóolu man nga ni ba tey wasallama te mu musal leen tasliman ak musal da cee teg julli ci yonent bi ne yàlla na yàlla dolli teraanga ak jàmm sunu sang sunu kilifa di muhammad dolli ko itam mbokkam ya ko gëmoon ak saxaabaam ya saxaaba yi nag mooy mbooli ñi nga xam ne gisoon nañ ko te gëm ko rek te faar ci gëm ko rek ñoo ñëpp bokk nañ ci saxaaba yi ñoom ñëpp yàlla na yàlla dolli leen teraanga ak jàmm ba faaw faaw xasbuna doy nanu allahu yàlla wa ni'ama te baax na wala wa ni'ama te amul moroom alwakiilu yàlla mënu wakiirlu ñun day doyloo nañ yàlla te yàlla ku doy la rek ku ko wékk say mbir wékk nga ku doy sëkk inamal amaalu naka jëf binniyaati nekk na ci yéene te wa innama li kulli mri'in naka ñeel na sépp si tam mooy ñeel na képp nit rek maanaam waa la mu yéene nee na jëf moom ngi takku ci yéene rek bu yéene ji sellee ji rëy loolu fa yàlla waaye bu yéene ji rafetul rek du toll nenn fa yàlla xam ne jëf mën naa tuuti nii ci zahir te yéene ji tax koo rëy lool waaye jëf mën naa rëy nii te yéene ji ñàkk solo ji tax koo tuuti loolu fa yàlla kenn ku nekk la nga yéene rek ngay am wa fil xikam yi nekk na ci xikam yi boo déggee xikam yi mooy wax yi am njariñ ne man talaba ku sàkku al amra mbir wajada te mu farlu ca wajada mu am ko nee na boo dee wut mbir te farlu ca bu baax a baax rek yàlla mën naa def nga am ko wa man xaraxa ku fëgg albaabu buntu ba wala ja te ca fëgg wala ja mu tàbbi moog lee soriwul max naa boo taxawee ci buntu bay fëgg rek sëgg ca bañ a bàyyi yàlla mën naa def buntu ubbiku nga jàll loolu lépp li muy tekk rek mooy da ngay xam lan mooy lu baax tam jaral lu ne nga di ko wut rek taxaw temm rek ba yàlla may la ko wa fiiha nekk na ci xikam ya wax yi am njariñ man am sakka ku téye boppam xam ne fudooli waris caaxaan xob da kon limaaleef ko min arbaabil xuqooli ca waroom xel ya ne ku téye sa bopp sori caaxaan moom ki wàññi ña yeewu boole la ca ndax caaxaan moom du mujj fenn kon nag ku koy sori doo ko jege ku wàññi ñi yeewu boole la ca wa fiiha nekk na ci xikam yi wax yi am njëriñ man laa yusxitu koo xam ne du merloo nafsahu ba kanam laa yurdi du gërëmloo rabbahu boroomam mu ne nee ñu koo xam ne kat sa bakkan la ko neex ca nga koy topp doo nangu mukk lu ko naqari kon doo merloo sa bakkan mukk xamal ne kon doo mën a am ngërëmal yàlla ndax sa bakkan moom du la jëwi mukk ci lu may rek luy merloo yàlla wa fiiha nekk na ci xikam yi man faxala ku def man faxala ku def macha la ko neex laq ya mu taseeg masa la ko naqari nee nañu kuy def la ko neex rek te du seet ba xam lii la war a def am déet faw muy taseeg lu ko naqari saa yu ne te du ca man dara faaw fu mu toll taseeg loo naqari te du ko mën a faj wa fiyaa nekk na ci xikam ya man laa sama ku taqoog mu jaaxadata nafsi yi jihaar ak bakkanam faasa kon mu texe xinda xoloo li rab si wàccu bàmmeelam ba ne nee nañu ku taqoo jihaar bakkanam jihaar ja moom ak dundub toll rek la war a toll ndax wërta bàyyi ba keram muy faatu waaye nag bu bu rek ba wàcc ci paxum bàmmeel rek foofu lay noppaloo faaw faaw nag incha allah wa fiiha nekk na ci xikam yi man ku topp ar rasul yonante bi naa la mu am xayra soo ngën ji pajub aajo mu ne nee nañu bi topp nga yàlla ndax su borom na ne man yuti'i rasula faqad ataaha Allah kon ku topp yonante bi topp nga yàlla te kon nga am gën ji paju aajo wax na jaamihu haadihi lxikami aji boole yi lay aw bayit waaxid nu di wenn fii maana ci bile maana te waxoo moom moo di man képp koo xam ne saama woor na xanir walis caay-caay ya fa indaxoo moom yëf tiru doge bil fadaili ci ngëneel ya sëriñ bi dane man mi doon boole wax yu am njariñ yi am na bayit woo xam ne maa ko wax te mënees na koo boole ci wax yu am njariñ yii mooy dama ne képp koo xam ne bàyyi nga caay-caay yi da koo tudde nag woor ci caay-caay yi woor ci caay yi rek mooy bàyyi caay-caay kon nee ku woor ci caay-caay yi bàyyi caay-caay yi daal yàlla jox la ngëneel yi nga doge ca muy sa ndogu xam nga moo tax mu tudd ndogu daa bëgg a wax ne ku sori yu bon yi rek yàlla daal lay takkaayale ngëneel ya nga xam ne kon da ngay sangu ba set ci mboolem yu bon yi yàlla door laa takkaayale ngëneel yi ak daraja ya kon ku sori caay caay yi yàlla jox la ngëneel rek mooy takk takk bi mubaarakul ibtidaay li luñ barkeelu tàmbali la nooy boo dul intiyaay tey lu ñu barkeelu mat nee na bi mi ci yaakaar yàlla def ko muy tàmbali bu am barke te sax ba mat lépp di barke wala xoo ñal na ko moom sëriñ bi ay ba tey ziida yàlla na dooleef ko fay doon ak bëbb wala nga ne doole ko may wala baawaanu may baytul aw bayit aaxaru waneen fii haadal maanaa ci bili maanaa yam si mu dana way maanaa xawli cheikh yi maanaa waxi sëriñam ba radiya yàlla na doole gërëm allahu yàlla taala kawe na xan walis ko te waxoo moom moo di dawlatul baatili nguurum neen saaxatul wenn waxtu la waa dawlatul xaq nguuru dëgg ila saaxat jëm na bis penc bi ko sëñ bi wayee nag mu ne alxaqu